ndaje la bu am solo boo xam ne nii lu ko tax a jokk mooy gën a accélérer liggéey bu am solo bi nga xam ne ñu ngi koy def ci wàllu logement xam ne nii dañ ko tënk ci projet bi lii nag pour ñu def ko il faut ñu càmbar projet bi nga xam ne ko duppee cent mille logements. dafa amoon solo pour ñun ñu def taxaw seetlu lan moo waral jafe-jafe yi ak ñun fi nu président de la république Bassirou Diomaye fay joxoñ nañu fii laa bëgg nga yegg fa Ousmane Sonko premier ministre ñu kon jaar yoon wi ah ñun boog ñu xool suñu groupe suñu ministère. kon yan principe lañ war a teg yan joyanti lañ war a joyanti pour que foofu ñu ñu président de la république joxoñ Ousmane ko wax ñu ne yoon wi nii la ñu mën koo doxalee ba yegg. ginnaaw buñ ko dawalee ci juróomi at nag projet bi nga xam ne dañ ko duppee cent mille logements liñ ci yaakaaroon mën nañoo wax sax amuñ ko loolu nag ay jafe-jafe yu bëri ñoo ko waral. jafe-jafe yi mën naa la wax ne ci ci ñetti pàcc la buñ ko xoolee ku ne tabax ni suuf donc suuf si bu fekkente ne jot ci dafa jafe. ci procédure yeeg ni ko administration di fonctionner fi mu war a jaar buñ ko jafeelee rek promoteur yi war a ñëw liggéey ak état mi war a aménager day am jafe-jafe donc li gënoon Euh, jafeel mbir mi mooy am suuf soo xamante ni ni tey lépp luy mbiri kayit yi mu war a àndal pour ñu mën ko dugal ci programme bi yemb na yomb na loolu mu bokk na ci jafe-jafe bi loolu dinañ ci xool yan càmbar la ñuy def pour que bépp suuf bu ñu gis ne suuf si war na mën a dugg ci programme bi rek ci lu mu gaaw gaaw gaaw mu mën a nekk suuf soo xam ne ci ci ci lu gàtt war nañ ci mën a commencer liggéey bi ci topp mooy suuf si balaa ñu ciy mën a jëfandikoo foog ñu aménager ko parce que promoteur bi ñëw di def projet moom am na lu mu si wut waaye am na coût yoo xam ne état moo ko war a supporter mooy lépp luy yoon lépp luy euh, espace collectif yi. yooyu yëpp nga xamante ne ni dafa ànd ak dëkkuwaay bi buñ ko deful lancer projet bi dina jafe. donc loolu nekk na ci poñ boo xamante ne nii gis nañ ne ab jafe-jafe bu rëy la dinañ ko càmbar xool nañ koy nañ koy yombalee ba ca topp nag mooy mobilisation financement parce que ku ne logement ku ne promotion ku ne accès à la propriété même suñ ko yombalee xam nañ ne laaj na ay moyens yu am solo. jafe-jafe yi mën nañ ci jàng sax taxawal fi ab projet mucc ay boo xam ne nii askan wi dinañ ci mën a jot. projet urbain yi ñuy porté nekkul rek mbiru dëkkuwaay.